maam bu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta maam maaram bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokki julli di mbokki taalibé yi mbokki téléspectateurs yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziyaare leen ñoo ngi ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu seex Mouhamadul Basir sunu borom yàlla na ko fi yàggal ba mu yeggale naal yi mu naalal Serigne Touba Xaadima Rasul ànd koog nag njabootug Serigne Touba gépp di ziyaare bu baax a baax jëwriñ alaaji Mbàkkiyu Fay di ko ñaanal ci barke barab bii ñu taxaw sunu borom may ko mu yeggale li nga xam ne nii mooy liggéeyub Serigne Touba Xaadima Rasul ci masaalik ak yeneen i liggéey yi nga xam ne nii. taaliba yëpp yéene nañ ko ko sunu borom yàggal ko fii lool te may ko mu yeggale ko di ziare Serigne Cheikh Balla Samb bu baax mi nga xam mooy coordinateur général télévision bi di nuyu sëñ Jibril Ndaw mi yor programme beeg sëñ Mbacke Mbodj muy doxal lépp lu jëm ci wàllu production bi tey jii nag ñoo ngi fii ci Magalou Porokhane édition 2019 Porokhane di dëkk boo xam ne nii dëkk bu am taarix ci Sénégal la waaye dëkk boo am taarix ci yoonu murit la ndax ku ne xam na ne bu dee buñ ne taarix ci Sénégal dañuy ñëw ci lan moo indi sababu sëñ Maam Mor Anta Sali mi nga xam ne ni moo fi indi ki nga xam ne ni tey jii moom la ñu defal bis bii di soxna Mariama Bousso Jaaratullahi Sayyidatuna liggéey boobu nekkoon liggéey bu am solo ku ne xam ne réew mi yëngu woon digganteem ak Mamba Jaxu taxoon mu jóge bawal ñëw fii nga xam ne ni mooy Saalum waaye nag ci biir liggéey boobu la àndoon nag ki nga xam ne ni mooy Sayyidatuna Mariama Bousso Jaaratullahi ñëw gi ma ñëwoon fii nag sunu borom moomee dox ci diggante bi yàlla dogal ci ay dogalam mu leeral barab bi na ko euh, ki nga xam ne ni mooy sunu yaakaar waxoon ñaane woon ko sama borom ci mu leeralal ko ko siiwalal ko ko ñuy def bis mel na di ko ko kii nuy ko nag niñ koy waxee ci histoire ak taarix fanweeri at ak ñett la dund waaye fanweeri at ak ñett yooyu moo barkeel ba indi lii tey kenn ku ci nekk di xalaf xalafi di jóge fu ne ci àddina di ñëw fii Poroxaan di dëkk boo xam ne ni dox na ci wàllu économie ndax ku ne xam na ni wàllu jënd ak jaay dox na fi kon dafa bokk ci bis yi nga xam ne ni dañoo bokk ci ñi participer ci économie réew mi Porokhane di dëkk boo xam ne ni dëkkub xam-xam la na sëñ Tuubaa ñaane woon Tuubaa ci wajaxalu dëban maskana taallumi wa mawdial fikrati wa tafahumi dal na dëkk bii di xaan ci njabootu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul daara ju rëy joo xam ne ni naan nañ ko fi mboolem kuñ tudd Seydina Seydatuna Mariama ñu indi li fii nga jànge fi alxuraan jànge fi xam jàngal fi liggéeyu jigéen ba mata dem kër ñu joxe la fa kon nag dëkk la boo xam ne ni bokk na ci dëkk yi nga xam ne ni participé na ci histoire réew mi waaye participé na ci histoire yoonu murit rawatina nag li nga xam ne ni mooy l'islam duñ sori nag ci kàddu yi ndax xam ngeen ne télévision Touba TV équipe bu am solo la yëkkati ñu ñëw fii ci Porokhane ngir dundal si li nga xam mooy bis bi ngir wan ko téléspectateurs yi maa ngi taxaw ak Serigne Moustapha Kane mi nga xam ne nii barki dem ba léegi ma nga woon naawel jaar ci dëkk dëkkaan yi ngir andi li nga xam ne ni mooy ziar yi nga xam ne ni nit ñaa ngi fay jaar di ko fa def maa ngi taxaw ak Serigne Jibril Ndaw mi nga xam ne ni mooy directeur programme tele bi ñu àndandoo moom it jaar Kaolack def ay ziar ci Cheikh Mouhamadul Mourtada moom Serigne saaliw waaye ñëwaat fii nag ci dëkk bi tey jii nag ñu ngi taxaw itam sunu mag sunu xarit sunu wëlëre sëñ Vieux Thioune Madior ñu di ko ziare baax di jànkatu xasaay mag ñëpp xam ko ñu seq wëlëre waaye nag ku ne xam na ni itam dëkk bii ni ko waxee léegi sëñ Moustapha dama lay bàyyee rek kaddu gi ndax dëkk la boo xam dëkk bu ñuy taataane la dëkk la boo xam ne nii mboolem ku fi ñëw rek am na aajo joo ëmb ci sa xol te yaakaaroo ci kudul soxna jaara ginnaaw bu yàlla ak ci bi sëñ Tuubaa wéyee kon dama lay bàyyi rek nga dëgtal mbokk yi yoor yooruk poroxaan tey moom la ñuy wax yoor yooruk poroxaan léegi rek yaa ngi may wax ne dëkk bii ñu fii ñu taxaw daaw fi lañ taxawoon daaw jég fi lañ taxawoon yàlla nañ fi taxaw ay ati at di wax ne téléspectateur itam ñu ngi leen di fàttalikuwaale ci ñaanuk bis bii waaye ci ñaanuk yoor yoor gii suñu borom faj aajoy mboolem jullit yi te teggi fitna yi nga xam ne nii jullit yaa ngi koy jànkonteel ci barkeb jàmbaar ji nga xam ne nii lu ne def na ko ci lislaam te lara waru ko lu dul la sëñ Tuubaa ñaanoon xut ummatal Moustapha xammaay jurul lahum waaye xut ummatal Moustapha an kulli mafsadatin sëñ Moustapha Kan jërëjëf sëñ Amidoun ñu ngi lay sant bu baax kàddu yi rafet na matale na tegu na ci xam-xam yàlla na yàlla fay la ñu ngi sant mboolem téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi jàkkaarloog ñun ñu nekkal leen fii ci Porokhane ngir di taataan li fi ne waaye di feeñal li ngir wan leen ko ngir ñi di ko mën a bége euh, di nuyu alaaj Mbàkke yu fay mi nga xam ni ak dundam ak yëngatoom bëgg-bëggam am xelam dooleem taam lépp da koy jël jox ko Sëñ Tuubaa moo yooyu nag di ko ñaanal yàlla li mu bëgg moom moo ko xam ndax damay dégg bu sara sàmb di wax nit boo koy ñaanal danga koy ñaanal mu am lu mu bëgg loo ko mën a may ci àddina te amagul lu mu bëgg dana jël loola jeexal ko ci biir la mu bëgg ba keroog muy am la mu bëgg wala lam yor jeex kon la mu bëgg moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defal am na taxawaay bu am solo boo xam ne def na ko ci télévision bi waaye bis yu mel nii daanaka lu mu mën da ko ciy def comme ni nga ko waxee léegi ngir bëgg rek lépp tegu ci aw yoon kon noo ngi koy ñaanal di ñaanal njabootam gépp di nuyu seen Cheikh Balla sàmb mi nga xam ne mooy suñu kilifa waaye nag di nuyu bépp équipe boo xamante yaa ngi ci biir télévision bi sëñ am di sant bu baax suñu kilifa gii ñu àndal muy Serigne Jibril mi nga xam ni euh, yaakaar naa ni bi mu yoree programme télévision beeg léegi suñ borom defal na ko ci sutura soo xamante ni ñëpp gis nañ ni télévision bi programme bi changé na bu baax te it na ci ni nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi bëggee ndax mbooleem njabootug sëñ Touba gi ñu ngi rafetlu programme télévision bi nii muy doxee bi Amidoune di sant bu baax caméraman bi sëñ Abdou Khadre sëñ am ak sëñ vie mu baax mii nga xam ni noonu nga ko waxee rek jànkatu xasaayit la waaye borom xam-xam la taxaw nii ci suñu wet noo ngi koy nuyu di ko siyaare sëñ am dëkk bii li fi sëñ Touba wax waxu ko njaarim gam ne woon waxu ko tuubaa waxu ko Thièyeen waxu ko gànnaar gam demoon waxu ko Gabon gam demoon lim fi wax mooy Porokhane mooy fi nga xam ni ku fa ñëw fekk ma fa la wax walla boo fa toogee tuuti ma fekk la fa loolu nag am na lu tax loolu mën a am loola mooy waajur dafa foor ku ne xam na ndey placement bi nga xam ne am na ko ci doomam yàlla suñ borom tudd na ko ci alxuraan nit mënta ëpp mënta am lu ëpp ndeyam rawatina nag waajur wu mat waajur waajur wu mel ni soxna jaara ndax sëriñ bi wax na ni soxna jaara mat na ndey ku ne muy barab boo xamante ni sañu am pajug aajo la ndax ñëpp maase nañ xam ci ni bépp aajo boo xam ne am nga ko ak foo mën a jóge ci àddina nga taal sa oto ñëw dugg ci biir barab bii wax ko soxna si dégg la yàlla suñu borom dana faj aajo jooju loolu ñëpp miin nañ ko kilifa yu baree bare bare sa ñaam da ngay jékki-jékki ñu ni la ñun kat suba dañuy xëy dem Poroxaan lu tax dama am aajo joo xamante ni soxna jaar rek ma ci doy loolu nag suñu am leen rek moo ko mën a may li ko mën a maye mooy takkoog suñ borom yàlla boo takkoog moom jël sa lépp jox ko ko te triché woo yàlla dina wan ñëpp ni leen man ku dox jëm ci man ma dox jëm si ci yow ku daw jëm si ci man. bu ma dawee jëm si ci yow damay tampaloog yow ba aajo joo am lép day mujj doon sama mbiri bopp yoo xamante ni aajo jooy am rek day dugg sama biir aajo euh, kon sëñ am mel na ni am nga gan goo xam ne am nga ko gan gu rëy rëy xam naa bu ci kanamee dañ lay bàyyi nga dugal ko waaw waaw magoog moo mooy poroxaan magoog kon loolu lii li muy wane rek mooy kani euh, télévision Touba TV sa su nekk rek fu mu nekk di fa liggéeyal sëñ Touba rek bala faa jóge dana am firnde luy wane kani liggéey ba yàlla suñ borom seedu na ko waaye nangu na ko kon ni ngi lay siyaare bu baax suñu Ablaay di la di la ñaanal euh, xaside yi yàlla suñ borom defal la ci tawféex defal la ci ndimbal euh, gën a yokk li nga xamante ni mooy xéewale ak barke bi di sant bu baax mbooleem koo xamante ni rek buggoon ngaa ñëw te ñëwoon na nga jàpp ne ñoo la ñëwal ni ko sëñ am waxee aajo ji nga xam ne war nañoo dugg fii ci biir barab gi ñaan ko fi buñ ko ñaanee ñoo jullit waxuma muriti waaye jullit àdduna bépp ñu nag ñoom a ko bokk ndax Sëñ Tuubaa li mu yor xajul Sénégal ëpp na ko àdduna bépp mën nañ cee jariñu kon euh, sëñ am duñu guddal dañuy yem fii rek ni nga ko waxee am na yeneen reportage yu am solo yoo xam ne incha allah mi ngi ci suñu kanam euh, te lépp incha allah di mangoog euh, mi ngi noonu waaw sëñ sëñ Ablaye Diakhoumpa moom la ñuy bàyyi rek kon mu am ay kàddu yoo xam ne dina ko mën a wax ci li nga xam ne mooy màggal gi gis nga ko murid yëpp bu màggal gi ñëwee dañuy mel na duñ ànd ak seen sago li ko li ko waral nag Mbacke Balla. camion boo war a yab 20 tonnes doo ko yabal 20 kilos. da ko naan lan mooy poroxaan. lu sabab poroxaan magoog kon dégg nga ni ko sëñ am waxee ci gudd ci gàttal daal lu sabab poroxaan kon euh, jërëjëf maa ngi leen di nuyu sëñ bi sëñ sëñ bi sëñ Moustapha sëñ am di teg seen loxo nuyoo sëñ Mbàkke yu fay ñaanal suñ borom dimbali ko ba liggéey bi ñu teg ci ay waggam mu am ci ndam daje cee ngërëmul sëñ Touba laaj ngeen loo xam ne mën nañ fee mën nañ mën nañ fee fanaan mën nañ fee yendu waaye man naa gàttit li ci jëkk mooy suñ borom sëñ Tuubaa dafa waxoon ne bi may liggéeyal yàlla jommalu ma ko waaye bi ma yàllay fay naxu ma soxna jaara loolu mën nañ ko delloo si ci moom fii mu tëdd du cosaanam cosaanoowu fi aw askanam it dëkkuñu fi woon liggéeyal yàlla moo ko fi ci diggante bu gàtt ndax mën nañ ne daanaka menn at la fi def 1865 la fi ñëw 66 la nelaw ñu denc ko fi diggante boobu xamatuñu woon ci moom dara laa mën a wax waaye sëñ Tuubaa moom xamoon na ci moom dara ndax bàyyi woon na ko xel diirub li sëñ bi di nekk ci biti ci résidence survey yi ak yëpp da daan bàyyilu xel barab bi ba sa wax nañ ne sëñ bi dafa xàmmee woon nit ku dëkk Saalum maanaam seen waxin da koo xàmmee boo ñëwee fekk mu jàpp yitam su déggee sa kaddu xam ne ab Saalum Saalum nga da nga ko gis ngir jëmmi soxna si bu la gisee dana laaj ndax xam nga ci soxna si dara wala déet bu baax a baax ba ni mu joxee ndigal ay mag ñu nekkoon ci réew mi di ay taalubeem xam ngeen ko sëñ bay Mbuuma sëñ Babacar Diabou sëñ Moussa Paté Dramé Pakacaar sëñ Maba Awa njaay kër ma Maba Awa sëñ Baara Taal Fetto ñooñu ci bu njëkk ñoom la santoon ñu nemmeekul ko fii barabu soxna si ba ni sëñ Bassirou jote ndigal nag directement ci sëñ Tuubaa ci sa maam dafa soxla ku ko wettili ma taamu nga wettili jël ma ko ci la sëñ Basiru ñëw réhabilité Poroxaan waaye soxna jaara di koo xam ne dafa taxañ ak dundam ci digganteem ak boromam bi nga xam bi mu ne bëreet ba baatin bee karaamaat yeeg xawaari xul aadaat yeeg yooyu dañ koy teg ne mooy xar baax waaye lim njëkk a def mooy bi ko sëñ buñ ko sun borom tànnalee askan wu baax dañ koo jàngal awalan mu jàng xam ñu yar ko biñ ko yaree ba noppi nag futti futtiku di liggéeyal yàlla dajeeg nag ku baax muy sëñ Mor Anta Sali di borom xam-xam boo xam ne maandu teem ak xam-xamam bu rafet loolu sëñ Tuubaa woy na ko ko woy na sëñ Mor Anta Sali ci xam-xam bu rafet ak maandu gu wóor ndax ñu ci bari loolu war nañ leen koy jàngalaat ndax bi sëñ bi jàng arut sëñ Mor Anta Sali ci la ko woy xasiid rek laamiye boo xam ne maa ngi ko tàmbalee a yaa man baal ahkaami yaa xaw sa dilili a yaa xarma yaa naamuusa yaa xutba zal jiili loolu foofu la ko tàmbalee di melal melokaani sëñ Mor Anta Sali yu rafet soxna jaare ñëw ci sëñ Mor Anta Sali indaale xam-xam bu mat sëkk ak dogu gu wóor dogu gi bi ci jëkk mooy booba liy aada mooy boo waree dem kër ña nga dëkkal tañ di bokk di nit ñu baax dañ lay gaw dañ lay wër biñ ko wëree wax ko melokaani sëñ Mor Anta Sali lam njëkk a def yitte magu ndax fam dellu mooy dellukaay bi mooy alxuraan daf na cas kaamil bi ci xar kanamam ne ko gawet yam ci aayay sunu borom ne ginnaaw yonent bi yonent dootu am mu tëj téere bi daal ne aayay la tabdila li kalimatillah mu tëj téere bi daal ne a ah, aayay ji may am tax na munu maa wax ne danaa fi amub yonent waaye danaa jaayanteeg yàlla ba am fi doom ju baax lam ca teg ci wolof mooy te loolu sañ na ko ndax sunu borom ma ko may ñooña du fi jóg daf ne tu sayyidatuna aminatu bintu wahbin miy way jur yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak sayidatuna Maryam mi wayjur yonent yàlla Aysa sañ na maa ànd ak ñoom di liggéeyal yàlla ci génn kër te duñ ma gën doom loolu la ci teg daal di futtiku nag non seulement doonul lu mu wax ci aw làmmiñam waaye da koo fas ci xol bi jëfee ko ci yittey boppam mooy taxaw taxawaay bu mat ci digganteem ak boroomam ci nangu koo jaam bari na ay waykat yu ci wax sëñ Masamba Marema leeral na ko dégg nga sëñ Ahmad Diaw ad-Dagani wax na ko ci lahal alaamatu la yaxfa ala ahadin dégg nga loolu way na ko ci wax jikkoy soxna jaara yu yéeme sabrun hayaun wa axlaaqun muhaddabatun tiibul kalaami wa ma bil xawli saara ila axirihi muy wax ju bëree bëri joo xam ne mag ñi seereel nañ ko ko ci digganteem ak boroomam yooyu nag mu boole ko boole koog nangoo jaamu yàlla su guddee du nelaw su bëccëgee du lekk lépp luy lu baax mu nekk ci kooku nag su gi ñëwee dafay nuru jëf ji léegi nag doy na ci ne moom li mu am ci njëkkante bi mu doon njëkkante ci digganteem ak boromam résultat bi doy na melal jëfi soxna jaara résultat bi mooy Cheikhul Khadim ndax ci mujjug woyu sëñ Ahmad Jaw ak Dagani wax na ko ne ko biki sana wa rida wal faxru tabshiratan xad haasa ibnuki maalam yaxwi labrara yaa yeeyoo aw tagg bu la neexee nga puukaréwu sa doom ji am na loo xam ne ñu baax ñi ko jiitu woon mosuñu koo am loolu nag sëñ bee ko firil boppam mooy illa yaqaadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li ni mais beneen bi ci nekk di sew-sew bu ñëpp di war di seet mooy sunu borom mi préparé sëñ Tuubaa di wut ndab lum ko def muy muy soxna jaara mooy réceptacle bi taataan sëriñ bi soxna jaara téye gim téye làmmiñam ci lim yor xam na ne am na kook de wareesu koo siiwal te waxtoom jotu mu noppi loolu sëñ bee ko ko seereel sëñ bi moo ko seereel ak nëbb sekkareem ak téye làmmiñam muy xefzul xayb yooyu nag melo lii boo boo ko gisee ñu wax la taarixam fi mu jaar ak digganteem ak boroom ak ni mu mel lii du la jaaxal sunu boroom nag dañuy wax ne bu la defalee xabul yàlla bu la nangulee xabul bi ci asamaan si lay tàmbalee mu xamal ñooña ñafane ne leen kii nangul naa mu wàcc jaww ju njëkk ji mu ne nangul naa ko mu wàcc ci suuf si ne nangul naa ko géej gi ne nangul naa ko su boobaa nag yàlla moom bindeef yi day xiir bindeef yi ci sa kaw. ah tubarkalla sëñ am yaakaar naa ne sëñ Ablaye day euh, euh, lu mel nii rek dana gën a tax ñu xam ni euh, tëddul di nelaw ndax dafa am loo xamante ni dañoo wax ni ku wax feeñ te suñ borom da ko am lu mu ko defal ci xaside yi. waaye histoire dafay lu am solo loo xam ni ci àddina soo demee ba di ko wax da koy maîtriser teg ko ci yoon teg ko ci xam-xam ba ku ko dégg man cee jariñu ci wàllu xam goo xamante ni xam gu leer lay doon kon yaakaar naa ni euh, boo amaatul beneen question boo ko laaj si ñaam dañ koy euh, dañ koy uh-huh. euh, nee naa la sëñ Jibril napp na jën wu naqaree jàpp Cheikh mun taxaa wax nga léegi ci sa biir wax ne 66 65 la fi ñëw 66 sun borom moome ko fi sëriñ Tuubaa di def ku ko nuyu mu ne la noo def ak soxna si laaj la ngir cofeel gi nga xam ne ëmbal na ko ko tey ñu dem ba ab sëtam nekk toog toogaayu sëriñ Tuubaa di dugg si ci dëkk bi àdduna sépp génn di ko teertu di ko dalal na naari màkkee doon dalale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ban jeexit la war a mën am ak pas-pas bi nga xam ne ni njabootuk Cheikh Mouhamadul Basir ëmbal nañ ko soxna Mariam Bousso muy ndigal lu jóge ci Serigne Touba Xaadimu Rasul waaye tey moom yaakaar naa ne bari na rôle bu mu joué bari na yàqiin ak yaakaar jum dolli ci soxna si di soxna Mariama Bousso lan nga nuy indi ci Cheikh Ahmadoul Mountakha waaw euh, xam naa damay sëñ Bassirou laay njëkke lépp moom la sëñ Bassirou dama ne la mooy ki jot ndégalul sëriñ bi ci feeñal barab moo ko feeñal ci aw kaw ay jafe-jafe waaye ki njëkk a wuutu sëñ Bassirou muy sëñ Moustapha lépp moom la poroxaan bu doonee dëkk ndax sëñ Basiru bi mu fi fanaanee bi mu fi fanaanee ci kaw ay jafejafe jafe ba ñëw ci barabu soxna si bi mu bi mu bi mu ñaanee li muy ñaan bi mu xëyee daf ne barab bi fas naa yéene mu mel ne Touba fas naa yéene mu mel ne Touba yéeneem jooju mu commencé di ko réaliser ci ay jëf ay mool la njëkk a def ngir tabaxe ko barab bi dégg nga 1966 yàlla ñëw ak mbiram mu nelaw sëñ Moustapha mooy taawam bi ko njëkk a wuutu léegi nag sëñ Moustapha yor jommi boppam ak xam yéene sëñ Bassirou parce que ginnaaw nee na fas naa yéene mu mel ne Touba rek sëñ Moustapha moom yitteem mooy Poroxaan mel ne Touba mu daal di taxaw nag ci Poroxaan doon dëkk dëkk bi ni mu toll sëñ Moustapha moom moo fi def kër yi ñi fi sanc moo leen fi indi école yi fi jot a nekk moo leen fi def courant bi moo ko fi indi électricité bi moo ko fi indi forage yi moo ko fi def kër maam jaare gi ak kër sëñ Tuubaa moo ko fi def muy loo xam ne mel na ne mënul woon a ñàkk waaye jamono yi muy liggéey loolu moo njaboot sëñ ba Basiru gépp a ànd ndax sëñ ba Basiru yàlla da koo dimbalee ak nangoo toppante bi fi sëñ Moussa di nekk moo leen yilif lu sëñ Moussa di def moom ñoo ma koy ànd ñuy nekkal sëñ Moussa ca lañ ko war a nekkal ba dëkk bi egsi fii mu si tey ci taxawaay daa daayira maam jaare yi sëñ Moussa moo leen nose daaray maam jaara moo ko def alors suñu saaxa dafay wax ne yéene sëñ Bassirou jëm ne woon fas naa yéene dëkk bi mel ne Touba yéene ji bu doon lu ñuy personnifié ruuxu ruuxu jëmm ji mooy daaray maam Jaara tey sëñ Moustapha jóge fi 2007 sëñ Mountakha ñëw lépp loo xam ne sëñ Moustapha defoon na ko mu gën koo rokkas gën koo dëgëraatal ba yokk ci leneen lu wóor a ndax moom mbirum sunu borom la ndax gis nga ne jamono yii nga xam ne doon na Serigne Bassirou dara manqué wul ci dëkk bi maanaam day gis ne dafa wormaal sëñ Moustapha ba lépp lu sëñ Moustapha masa sos loo noona la ko bay lu sëñ Moustapha masa nos loola na ko bay lam cay dolli ak rafetal lay doon sëñ Mountakha lii ko dab loolu du lu ko kenn may arab yi dañuy wax ne di tadiinu tudaan li nga leble lañ lay fay sëñ Mountakha dafa leble borom nangoo toppe ngir yàlla te waxtu wi muy toppe mi ngay kum xelam mi ngeeg xam-xamam mi ngeeg ku bëggam mi ngeeg bañam waaye ñi mu war a topp ñëpp topp na leen ni mu leen war a toppee ba léegi nag moom mu doon ki ñu war a topp looloo xiir nit ñi ci amuñu sago ci moom boo xoolee dëkk bi ni muy demee booba ba léegi da xam ne kii li mu leble nit ñi di jéem a fay ak donte duñ ko man lim leble nag mooy doon jullit bu wóor di taalibe Sëñ Tuubaa boo xam ne lim doon Sëñ Tuubaa da koo teg nee mustaxaar dara musta sàkku dara ba lii fekk ko ci kon Poroxaan itam tànki kanam la am ni Sëñ Tuubaa waxee ne amul tànki gannaaw tànki kanam la am moo tax Poroxaan tànki kanam la am moo tax mu yokk ala kulli euh, yaakaar naa ni euh, dégg ngeen sëñ Ablaye Jaxum ba sëñ am li nga xam ne wax na ko waaye bala ñoo ñëw ci suñu directeur dañuy ñëw ci suñu yaay ju baax ji ndax xam ngeen <laughs> magoog sëñ am euh, suñu yaay ji xam ngeen ni màggal gii ñu ne màggalu soxna jaara la faw euh, ñun góor ñi dañoo sob rek waaye fii ñu fi waroon a wax wala ñu def ko jigéen ñee ko war a def sëñ fii xam naa ñi ngi ñëw ci yow léegi waaye sëñ am lan ngay lan ngay lan ngay wax ci loolu waaw jigéen ñi ñoo war a topp soxna jaara ñoo ci war a wax mën na leen góor ñi même ñi ci jaar ci yoon sax dabaguñ soxna jaara wax nga dëgg de góor ñi jaar ci yoon la sëñ mus la sëñ bay jaxate ne woon ko maanaam buñ ne woon ku ku ku kaala woote dem maa yomb ñëpp marinière u zipp waaye ku topp ci ginnaaw soxna jaaret boo dee góor ak loo baax baax di nga mari ñeew ah bind bu beesa ngoog directeur yaay booy ñoo ngi lay nuyu di la siyaare yaak njaboot gi nga àndal yëpp gis nañ leen ngeen ñëw dugg ci biir barab bi siyaare euh, mu mel ni yéen télévision Touba TV benn programme du leen ci raw nag am na lu ñu ci xam euh, ngeen bokk ci euh, famille Alaaji Mbàkke yu fay bokk ci famille Assane Morokoy Samb waaye nag nekk ñu baax ñoo xamante ni lu baax rek leen ñor looloo waral nga ànd ak sa njaboot gii nga àndal ñëw Euh, moo xam góor ñi moo xam jigéen ñi ñëw siyaare si waaye màggal gi nekk màggal gi soxna jaara yaakaar naa ne ku ciy wax rek yéen jigéen yéen yéen a ci war a gën a mën a wax lan nga ñuy wax ci màggal gi ak lu ngeen ci yëg tey xanaa sëñ Moustapha sant yàlla bu baax di leen nuyu julli ci Moustapha di sant Cheikhul Khadim di sant maam jaara man day ba nu jàppee dat beeg léegi nekkuma sax waaw ci beneen dimension laa ne tubaarkàlla maam jaar ñun jigéen ñi mënuñu ko fay ndax nag moon feeñalal jamono sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ak moom rek la gëm bis bi jaral nan lu ne boo ñëwoon fee may dal macha allah alhamdulilah waaw ñuy ñaan ci yàlla fekk ko at yu bari ba suñu njaboot gi di ko ànd ak seen doom ak seeni i sët ñun ñëpp maam jaar kenn mënu ko fay. lan ngay wax ci jigéen ñi ci góor góorgóorlu gi ñu war a góorgóorlu ci seen diggante ak seen i borom kër ak uh-huh. ku gis lii sëñ Moustapha man de li may wax sama njaboot gu jigéen gi nañu góorgóorlu cay topp seeni i borom kër cay neexal seeni i borom kër. def na maam jaara defoon maam jaara daal jigéen soxna su ne war nga ko roy li mu nu woon ak ku ñëw ci bisam bii ci benn jigéen ñun ñu jóge Dakar romb Dakar ak Porokhane ni mu sore ñëpp ñëw le monde entier jigéen ju ne war ngaa roy ci maam jaara ndax bisam bii ak Cheikh Khadim mi mu feeñalal jamono muy sunu yaakaar tey ak ëllëg yal nañ ko màggal at yu bare bare ci barke Cheikhul Khadim amin amin amin jërëjëf yaay booy ci kaddu yu am solo yooyu jërë ngeen jëf ñu ngi leen di siyaare jëwrin yow nee nga mënoo wax sax waaye bala ñoo delloo sëñ am kaddu gi mu dugal sëñ Vieux euh, mënoo cee ñàkk bañ a sànni ay kaddu ndax euh, sëñ am directeur boo xamante ni daa wàcce boppam ba tolloog ay employé di kaf ak ñoom di rey ak ñoom léeg-léeg moo am idée bu mu bëgg a def sax woo la yow sëñ am ni la nangam lan nga ci xam wala mu woo ma wala mu woo keneen boo rafet bu rafet loo la nga wax mu ne nañ def loolu kooku yaakaar naa ni euh, fépp foo xam ne yaa nga fa looy wax war naa am wàll ca wax jooju ñu di ko sant di ko ñaanal. fii nga xamante ni bëgg na faa yóbbu télé euh, télévision bi yàlla na fa yegg ba yóbbu ko foo xamante ni yéenam eh, weesu na ko sëñ Jibril dégg nga ni ko sëñ am waxee lan ngay wax rek ci euh, màggal gi nii mu amee solo ak nii ko ñëpp di dundandoo ak njariñ li nga xam ne yàlla def na ko ci soxna si ñuy màggalal. waaw jërëjëf sëñ Moussa tey moom dama ne woon du ma wax ndax euh, bu fekkente ne ay borom xam-xam dala dañ laa wër te kenn ko nekk tamit bu yëkkatee kàddoom njariñ rek la ñu jëlee. yaakaar naa ni eh, ku ñàkk xam-xam ku mel na man daanaka buy wax day xajamal wax ji loole moo tax ma ne tey jii du ma ci wax waaye nag sañ na maa ñaan ci barke jëmu mu ju tedd ji tëdd fii nga xamante ni ba mu fii ñëw booba fii yëpp ab àll rek la waaye ndigal indi ko fi pas-pas indi ko fi jaamu yàlla indi ko fi dogu indi ko fi ba tax tey jii mu am lii mu am kon nag dañuy dogu ci dogoom goog yi télévision Touba TV lii suñu yéene ñu ñaan ko te te te te dagaan ko soxna si mooy fépp foo xamante ni programme mu murite nga fa ñu mën a teew gaare matériel wala hélicoptère taw yi suñuy satelit wan ko àdduna sépp ndax foofu la liggéey bi toll loolu daal moo ciy suñu yéene te ñu ngi koy ñaan ñaanal nag alaaju mbàkk yu fay ndax xam na ni téyeelu dara télé bi lépp loo xamante ne rek yéenam la su waxtaanee ak sax daanaka da ngay gën a dàgg xam ne yow boo boo doon xalaat benn moom yéenam romb na fukk kon nag euh, dañ koy ñaanal suñ borom kattanal ko ba fépp foo xamante ni rek télévision àgg na fa ci àdduna télévision Touba TV mën caa àgg te it yitte ji dara lu dul rek wane liggéey Serigne liggéey liggéeyu Serigne Touba nag kenn mënu koo wane te wane woo liggéeyu Maam Jaara ndax moo ñu liggéeyal Serigne Touba kon nag ki ñu liggéeyal Serigne Touba bisam bu jotee euh, euh, lu télévision Touba TV génne wala moo indi ko rek doy sëñ Moustapha waaye daal ñaan kattan gi ndax yéen a ji moom ëpp na lii yéen a ji moo doon naawal ay hélicoptère ci jaww ji déployer fly yi satellite yi àdduna sëpp xam ni euh, senegal ci dëkk bu roqe bu ñuy wax Porokhane sore lool di ab àll jann jigéen nekk na fa liggéey fa loo xamante ni àdduna sëpp moom la ñuy jariñoo te loolu àdduna bi dañ koo war a gis dañ koo war a xam sëñ Moustapha jërëjëf euh, directeur Serigne Djibril Ndaw euh, kàddu yi am na solo sëñ am euh, bala maa jox sëñ vie dama lay laaj benn question rek dafa mel ni bi ñu taxawee fii ba léegi yaa ngi gis jigéen ñi ñi ngi jël ay yére yu am solo yoo xam ne dañ koy ñaw ñii ay saabu ñii ay dàll ñii lu mu mën a doon di ko di ko di ko def ci ay mbuus di ko yóbbu ci daara jee nga xam ni xale yaa fa nekk di jàng alxuraan comme ni nga ko waxee tey jii bu ma la doon laaj yow ban lan moo la gën a euh, frappé ci dunduk soxna jaara wala li ñu koy màggalal ci dëkk bi bari na waaye li nga xamante ni xëy na gis nga ne tey jii euh, màggalal soxna jaara réalisé na loolu lan nga ma ci indil sëñ Amidou sëñ Moustapha lu am solo nga wax soxna jaara ñaarama marqué ci moom muy nangu ak am sutura nangu sëñ Morante Sali nga bokk ak moom ndax soxna sawaalo ma ko meññi ma maaram nga bokk ak moom ñëw ci biir kër gi nangootoo bokk ak moom sëñ Moussa ku bokk ak sëñ jaay nga li nga bokk ak moom jënde ko topp ko loola mbirum yàlla la waaye buñ xoolee diggante soxna si ak jaay gim jaay lim bokk ak sëñ Mor Anta Sali doxale digg moom yàlla loola nangoo ko waral la sëñ bi laan waxoon ne tool yi nangu xol yi nangu ko gën te soxna jaara musul wone ne benn cër ne am nag bokk ak say moon sali ci biir kër gi musul nangu loolu lim doon wone mooy ndigal yi li yàlla wàcc ci moom mu war koo jëfee daa war a andi ku war a atte jaam ñi ëllëg te ki muy andi warta am benn fit kenn warul koo xool fenn naan yàlla di defar bi waaye bu dul woon wet gii lépp ma war a mat soxna jaara teg foofu tànkam at yu gàtt yi mu dund seen normal mu Moustapha ku wàcce ko toll ni sëñ Touba mënoo dund fan wu du ndax koo xam ne fanweeri at ak ñett la dund am lu toll nii bu dundoon juróom-ñett fi kat fu jëm kon su boobaa danañ am sax problème ndax li nga am problème mooy da ngay jàpp ne ba yàlla daree wàcce ba léegi wàcceegul ku mel ni moom ci jigéen ñi. beneen bi ci des mooy sutura ñi nekkoon ak sëñ Touba am na ci ñoo xam ne benn jataay lañ mës a am ak moom benn ndax sëñ Touba nekkul ku daan wéet ak jàmm ñi saa su ne benn jataay lañ am ak moom jommi ba fi may wax ak yow. billaahi benn yetaay la ñu am am jommi ba fii may wax ak yow soo demee ci seeni sët saat benn xisa boobu rek lañ lay nettali mës naa toog ak sëñ mu ne ko nangam baat boobaa barkeel ba tey ñu koy màggal waaw léegi ñaata at la dund ak sëñ Tuubaa sëñ bi won ko lu ne soxna si téeg loolu ne pat ak moom suturaal ko ngir xam ne ab liggéeyam jotagul tey diirub liggéey bi fu mu fi nar a taxawee war a am ay coona soxna si mooy taxaw ñaax ko dégg nga na ko na ko sëñ Moussa Ka waxee gis na fa nee na gis na fa sunu maam jaara bu di ko ñaax te di ko dolli daara loolu nag yaakaar naa ne ku ne am nga pay goo ko war a mën a fay koddaay lii ñuy dajale dañ koy yóbbu ci daara yi maam jaara yi koddaay lii jigéen ñi dañ ciy def seen yitte yitte jiñ ciy def mooy ngir fa yéene barkeelu ci ñuy woddu soxna jaara yi ndax bi ko sëñ Moussa Bassirou taxawal metti woon na waaye nag taalibe yi la ne leen jàpp leen ci junniy maam jaara te yaakaar naa ku defar ay xale yi tey defar nga réewum ëllëg. defe naa nit ñi waruñoo yem sax ci indi ay quotas de ci participation bi ñu war a def. dañuy participer ci seen alal dañuy participer ci liggéey bi dañuy participer ci parrainage parrainage mooy kenn ku ne la naan tippoo naa benn maam jaara maa yaayam di bàyyam ba kër muy wàcc alxuraan lu la war lu nekk yow lay war ci moom loolu mooy parrainage loolu la nit ñi jël léegi muy soxna yi soxna jaara yi mu nekk lu am solo man nag li ma gën a yéem sëñ Moussa mooy mbooloo mi. kenn ku ne yaa ngay gis bu jubee xabru bi boobaak léegi maa ngi xool waaye bu jubee bërëb bi da ngay gis xar kanamam ne yàkkamti lu dul dugg wax te benn aajo rek fendi gaa lii Makka rek la am ak Madina ginnaaw sëñ Tuubaa Makka ak Madina rek la am mooy nga dugg am aajo joo xam ne ngi ci sa kanam nga di ko nga di ko nësër boo duggee wax ko ginnaaw fa Poroxaan rek la am am na ñu fiy ñëw xamuñu sax soxna si lijjanti wuñ taalu sox saari xu soxna si waaye am na aajo joo xam ne ku dul soxna jaara mënoo ko faj looloo leen tax a jóge dëkk dëkk ñëw fii kon yaakaar naa ne loolu si mu lu ama am solo la balaa ñuy tëj ñu jox sëñ Vieux mu sànn ci ay kàddu ñu jox ndax ziyaar ñuy xaar bari na ak interview yi ñu war a am ci kanam tuuti kon sëñ Vieux dama lay bàyyi rek nga sànni ci kàddu balaa ñuy tëj. waaw euh, euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Amidoune Diop li nga wax lépp mooy dëgg man daal jàngat bi ma ci def mooy jigéen daal war naa góorgóorlu jigéen daal bu ko sunu borom defee ñu jàngal ko ba mu dem kër la ka fa war mooy góorgóorlu lu baax sëñ am yombul ku la yombalal su lu baax moo la tooñ soxna maam jaar lii mu am sonn na ci de doo koy am lu baax yombul jëkkër borom kër sang la kër du caaxaan sang la bu la sunu borom boo leeg sa sa borom kër na xam ne ngay defee ak moom ànd ak moom ci sutura ànd moom ci teraanga ànd ak moom ci di ko di ko di ko jàppale ci kaw gis loo mën a faj nga dëgg sa tànk te yàlla tax boo bëggee yàlla yëkkatale bu ëllëgee lu mel ni yombul soxna maam jaar lii mu def nii ay ati ati ati at ku gis gis nga bi ni ñëw tali bi ni mel gis nga barab bi ni mel lan moo ko moy jikko jàkk ko may bu nu tegee fee sëñ Tuubaa ci liggéey ba ak wilaya la ci wilaya ga maam Jaara dafa jaayante dafa jëf loo xam ne ñëpp teg nañ seen bët fanweeri at ak ñett xam nga ni ku ko dund def lu mel nii xam nga ni du ay caaxaan kon dee na macha allah moo tax li mu am jenn jigéen amu ko amul jenn fooy wër ci àdduna bi ba gis jigéen yu am màggal benn màggal moom ci àdduna bi muy màggalu soxna maam Jaara muy ci Poroxaan ñu ñaan suñu na ko bu baa a baa a baax a baax di rafetlu nag liggéeyu Touba TV bii nga xam ni gis na ne matériel yi ñu indi ko fii lii directeur wax dëgg la sëñ Jibril Ndaw ñoom bu ñu sañoon nee na ay satellite lañ fiy indi waaye li ci kanam raw li ndax kii nga xam ne moo ko jiite mooy alaaji Mbàkke Fay day yéenim romb na loolu kon ñu ngi leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah ba ca kanam jërëjëf sëñ bi kàddu yi am na solo Eh, jërëjëf sëñ Abdoul Khadir Ndiaye mi nu jàkkaarloon ci caméra bi sëñ Moussawa yaakaar naa alaaji sëñ Jibril dañuy daal dugg na ci dëkk bi wan mbokk yi li nga xam mooy ziar bi ndax cérémonie bi waxtu yu suba lay doon waaye nag am na ziar yu am solo yoo xam ne ni télé bi war na koo def di ko baaxee rek téléspectateurs yi màggal Porokhane édition 2019 di ci ziare mbokk yëpp di leen wax ne ñoo ngi fii ci Porokhane di fasaale mbokk taaliba yëpp kon bi ci kanam léegi incha allah danañ dellusiwaat ci yeneen élément di gërëm nag équipe Touba bi nga xam ne ni ñoom it ñoo fi nekk sëñ Ousseynou Mbodj soxna Awa Ndiaye ak ki nga xam mooy sëñ Mansour Gueye ak soxna Ngoone Cuun soxna Ndey Faatu ñu ne fii nag ngir fas yéene wane liggéeyu soxna Mariam bu sa jaaratulaahi kon ci kanam tu danañ ñëwaat incha allah ci yeneen élément jërë jëf maam bu sa jaara nuy na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbookam taala Anta mamaram